nekk si instant bu critique président Macky Sall ñun ñëpp dañ doon ñaan mu def troisième mandat ngir jàmmi Sénégal bañ nit ñi potoxlu gis ñett nit jóg ni d'accord ma si troisième mandat bi ñu potoxlu yàq réew mi ndërmeel ko mu couper leen l'herbe sous le pied ni leen loolu rek moo na doon seen argument bàyyi naa arrière na dëkk bi dama koy bàyyi ku tudd Amadou Ba mu continuer doxal loolu nag suñu daje yi daf ci am solo ñu ñëw tëgg woy bi neex na mbilim mi moom bu commencé kenn du bëgg mu arrêté wante dama bëgg ngeen xam ni élection yi élection yu am solo la li ci des bareetul te les marchands d'illusion ñiy wër di naxaate parce que jeune boo jàkkaarloogu moom jeune boo xam mi ngi jàng des fois sax ña fay toog ñi sëpp ay étudiant lañ tolloogul sa am liggéey nga ne ñaata ñoo am liggéey fi yëkkatewuñ seen loxo ku ne ni ah, kon kër dëkk bi doxul naxaate la dama ni président Macky Sall li mu def ci dëkk bi kenn du ko naatable monsieur le maire wax na léegi la pambaal Pambal Darou Alpha defe naa ni loolu nekkatul rêve parce que lu ñu demee ba boucler le financement étude yu commencé réalisation rek moo ci moo ci moo ci des kon loolu yàlla ngeen ko muurloo te bala muy ñëw yàggul wax na dëgg moom maire amul moyen yi mu tawaxee hôtel de ville léegi nii ci hôtel de ville bu bees tàq la ñu génnee te incha allah je sais mi ngi def ay démarches auprès du ministre chargé des collectivités territoriales ak ñeneen pour équipement yi ci war a am mu am ko ndox mi je pense que lim lim ci def yéen moom yéen a ko mën a seede mais man suivre naa ko monsieur le maire bravo ndax nag nit ku mar nga jox ko mu naan moom kenn de mënu def lu ëpp loolu. président Macky Sall li mu def yëpp asaka yéeneem la benn ñaareel bi da ko doon def te amul moyen ñu toll ci war a exploiter pétrole ak gaz mois de mai 2024 su si yàlla àndee le premier baril de pétrole dina génn Macky do euh, ki fii ne di Amadou Ba dootul lebi di defar day tibb di defar. la xew Qatar xew Dubaï moom lañ am yaakaar dina xew ci biir Sénégal ndax Sénégal est devenu un pays gazier dama ne l'espoir est permis bu leen kenn nax dëkk bi ñaara fi ne Amadou Ba continuer programme président toog eggale ko lépp lu ngeen gis benn ngeen commencé di ko gis ay fukki fukk ci at wala bu fekkente ni te loolu amaana du am bu keneen jëloon réew mi réew mi day ndërmeelu ndax duñu am xam-xam bi duñu xam fan la ñuy teg seen loxo te dinañ leen nax ci ay contrat yoo xam ne bu buñ ko signé gaz dina bari dinañ ko génne suñu suusal waaye benn njëriñ du ko amal Sénégal loolu nag musiba la te loolu mooy indi jaxasoo ak guerre ci dëkk yi nga gis yëpp ñu am pétrole gaz yàlla nañ ci yàlla musal kon monsieur le maire ñu lay remercier bi ñu joxee opportunité ñu dajale jigéen ñi ak jeunes yi waxtaan ak ñoom ñu bàyyi xel bu baax que ni yi am na solo si ñoom ku ne sa carte d'électeur na ko jël fa ne nga denc ko xam ni bu bës baa buñ nee wiiw ndam am na ni ko monsieur le maire Cheikh Tidiane Sall ñaane quatre-vingt cent yow nga mën a toog sa néeg kontaan bég ni man bokk naa ci ñi may Amadou Ba quatre-vingt pour cent au niveau de Pambal am nañ yaakaar ci yéen ndax fii moom da ngañ fee mus a lu mu metti metti te nag loolu incha allah di ngeen ko réitérer le vingt cinq incha allah février deux mille vingt quatre li ngeen wax nag projet yi financement yi li Lazare mën woo 3FPT li monsieur le maire waa rek bala nga naan naam ne fa suñu amatul possibilité woo leen mais tey bu fi Amadou Ba nekkatul du ngeen am benn directeur général bu CROUS bu cees bu ñëw ne may naa leen fukki emploi de te moom bokk na Pambal tey jii teeru ngeen ko teral naa ko fas yéene nee na teral comme ñun aussi niñ leen fas yéene teral ndax fii dañ fay bokk Pambal Tivaouane c'est la même chose man su may ñëw sama papa daf may wax dëkk yi yi sama maam am turandoo yu jigéen yu góor ak moom et cetera et cetera fii ak Tiwaawan benn la ku xam histoire xam ni loolu moom mooy li am. ma ñëw nag gis mbégte bi ngeen bég ci seetsi bi ñu leen seetsi mais ñun ñoo leen gën a bég monsieur le maire Cheikh Tidiane Sall jërëjëf ci cadeau bi kenn mënul may nit cadeau lu ëpp emploi yàlla na sax. yàlla na bari yàlla ñu yàlla dooleel ba moom it lu mu joxe rek ñu nit ñu mën cee dolli. te nag emploi yi ma njëkk joxe ba ma nekkee directeur général IPRES Pambal ci la bokk ku li xam na li may wax xëy na nag dëkk yi sorante nañ waaye def naa ku dem mbarablu am na jeune buñ fa jël boo xamante nii mi ngi liggéey IPRES def ngeen ay formation léegi ma gisee 3FPT dama bëgg man président Macky Sall de lii la def xam na ne ñëpp mu ngi toog ci bureau te ku xam jigéenu Pambal jigéenu séeréer xam ne ay liggéeykat lañ te formation bi yéen xam naa ne du formation bu ngeen def di ko denc si ay biir kër kon monsieur le maire jeunes yi xam nañu sport soxal na leen indi nañ leen ay jeu de ak ballon participer ko ci ce développement du sport dans le domaine de de Pambal jigéen ñi nag man ak Cheikh monsieur le maire wan boo jël nañu un million teg ko ci loxo monsieur le maire jàppale leen ko pour ngeen mën a commencé ci li ngeen xam ne am ngeen ci ay formation ngeen mën ci def leneen loo xamante ni. tàcc leen tàcc leen tàcc leen bu ñu ñëwaatee nag indi leneen dolliwaat leneen ak leneen. madame le ministre Fatou Diané suñu jigéen am na ñuy war a commencé waxtaan ak moom. ci ay matériel yu mu war a may jigéen ñi loolu tamit dinañ fexe ba Pambal am ci wàllam premier ministre Amadou Ba nee na dina ko ci jàppale moom tamit kon bu ñu ñëwaat serité yi day gën a bari incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf. Euh, le jeune bi wax fii ci turu jigéen ñi ci turu góor ñi xale yi ak ki nga xamante ne wax ci turu jigéen ñi man leen nag lamb li ca gën mooy daj mm-hmm. dañ ngeen tey xam nga li li tax ma leen loolu président Macky li mu teg Amadou Ba programme bi mu teg loolu rek ngeen laaj fii bu ngeen ko jàppalee ba mu gañee li ngeen laaj fii lépp lépp lépp lépp dinañ ko satisfaire maanaam dinañ ko saafara wolof tali bala nga ne naan nekk fa dañoo jëm ci élection programme bi nga xamante ni vision bi président Macky Sall am Amadou Ba continue ko jigéen ci jiitu xale topp ca xale topp ca ay projet yi ngeen xamante ni financement parce que euh, euh, ni ko euh, le président chef du village bu waxee dama ni ku dimbali jigéen dimbali nga nation bépp maanaam dimbali nga ñëpp parce que ni mu ko waxee wax na dëgg de sama classe gi bu seen wërsëg yokkoo rek ñu seeti am ñaareel wala ñetteel waaye jigéen lu mu am borom këram lu mu am doomam kon nag yéen ku leen jàppale jàppale leen lépp yéenay xool ci cin yéenay xool ci cin la ko kooku fàtte leen li mu yàq yàq lu yàq lu nit lekk lu mu yàq lu ñaw mbaam lay doon. kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax jeunes yi di leen wax dëgg yàlla fii ma ñëw fi ma jaar fi ma jaarul ak fii ma jaañ si invité du doon benn. ngeen xam ko man maay directeur centre des œuvres universitaires bu Thiès. course bu Thiès tàggu leen loolu waay bu soobee yàlla comme nag fii laa jëkk a ñëw DG monsieur le maire emploi yi nga xamante ne bi yàlla dénk na ko dinaa ci beral loxo commune Pambal la ilaha illallah te loolu dès janvier dinaa ni monsieur Diagne le maire lii maa ko teg jox ko commune Pambal muy xale yu jigéen ak xale yu góor incha allah ñu ñëw liggéey yi def loolu moom maa jàpp ci bis bi ah li ci des nag tamit Lazare xam na ko fu ñu mus ànd fu ñu mus ànd ñoo fa ànd xam na ñu ngi lijjanti li ngeen wax ci projet mbay li ngeen wax ci projet yeneen ak yeneen bu soobee yàlla buñ génnee ci lii parce que Lazare mi ngi ci jàmbaar la ñun ñoo dem maa moom ba léegi cadre de concertation de maires décision yi ñuy jël dénk leen ñu suivi bi maanaam fu ñu demati bu ñu ñëwee nañ ma ko dénk maag Lazare ñu dem topp ko ñu ngi topp courant ñu ngi topp ndox ñu ngi topp financement ñu ngi topp yoon ñu ngi topp financement jigéen ñi ñu ngi projet yi pour pour pour pour xale yi kon nag seen maire bii laa ni gàcce ngalama yëkkatil ñu loxo li ma leen di wax. la ilaha illallah li ma leen di wax nag fi may terminer. fi may terminer mooy dama ni wolof dañu bala nga ni naan nekk fa. fexe leen ba nga xamante ne bii bu ñu le vingt cinq bu ñu ubbee affaire yi ba tëj ko Pambal ni am na quatre vingt pour cent. wax quatre vingt pour cent. ngeen am quatre vingt pour cent. leen laaj ñu jox leen ko parce que nag politique bi la dem demee rek politique bi la demee ku la aw say lañ ñu laaj ñun ñëpp dañoo yónni dañ maa yónni yónni Lazare yónni keneen bis bu ne biñ buñ demee ba nga xamante ne bii ca ngoon ngoon jot na dañuy yebbi sunuy say mi ngi mel ni ay xale yu taxat yi fexe leen yéene naa ko ba Lazare bu bu ne bëcc aw sayam ëpp ci say yi gën a mag ci département bi bu ko defee ñun aussi ñu am say yi gën a mag ci département bi nga xam ne lu ñu laaj dinañ sañu laaj waaye bu fekkente ni bii fexe ngeen ba amul aw sayu mag buñ demee bu ñuy laaj aussi day sëgg rek du mën a wax kon nag ñu ngeen ko mën a sigilee mooy ngeen jàppale ko jàppale ko mooy jàppale seen bopp jàppale seen bopp mooy jàppale président Macky Sall ki mu mooy jàppale le candidat Amadou Ba pour mu jàll au premier tour avec au moins minimum 60 pour cent tey dama am mbégte bu fees sama xol ndaxte li xew tey waxtaanuñ ci waxtaan bu gudd. Monsieur le directeur SN HLM, Monsieur Mohamedou Diagne Sy Mbengue keroog bu ñuy waxtaan ci seen ñëw fii waxtaan ba gudduloon dama bëgga a wax waa Pambal rek ne li tax waxtaan boobu guddul parce que. ñaari yéene yu mat la ci benn mbir sa matoon na pour ñëw fekk si jigéen ak xale yu Pambal fii en tant que homme de développement en tant que aussi nit koo xamante ni am na gëm-gëm am na vision lii féete ci man keroog mooy booba ma bëggoon rek am gan gu mel ni yow fii ci commune Pambal ndaxte may maire te man maa njëkk a gis li Pambal soxla man maa njëkk a xam yoon bi jig Pambal man maa njëkk a xam fi Pambal war aw ndax mu mën a émerger mu mën a mel ni yeneen communes yi looloo tax ma ni booba suñu waxtaan ci lii gudduloon soyez-en vivement remerciés sa tey dafa ala doome maa ngi lay nuyu di la àggale fii ci commune Pambal di la nuyu di la àggale ak ñëpp ñi nga àndal muy délégation bi mooy sama naataangoo monsieur Cheikh Sall di maire commune Meewal ma xam ko ci ni mu bëggee goxam ma xam ko ci ni mu bëggee département Tivaouane ma xam ko ci nu mu farloo ci liggéey buñ ko dénk di la ne rek ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di àggali fii ci suufu Pambal di ñaan ñu nekk fi ci jàmm waxtaan ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm te yàlla def ba lépp luñ fi nos yàlla sàmmal ñu ko barkeelal ñu ko. xëj na sama wax waroon na mujje kom ça bu ma waxee ba pare nga jël wax waaye li ma lay wax rek mooy ni. sama xool sedd na tey te xoolu Pambal wala xoolu ñi dëkk Pambal ñi nga xamante ni ñoo fi teew ak ñi fi teewul yëpp kontaan nañu ci seen ñëw tey ñu ngi leen di àggali ñu ngi leen di dalal ci jàmm te wax dëgg fa yàlla booba bu ñuy waxtaan li ma waxoon loolu rek laa lay waxaat tey danga ma ne woon monsieur le maire damay ñëw ci yow. waaye jigéenu Pambal yi ak ndawu Pambal yi ñoo ma tax a jóg monsieur le directeur ñëw nga tey Pambal maa lay àggali di la wax ne rek jigéenu Pambal ak ndawu Pambal yaa ngi nii dila déglu tey nag wax ji mënul euh, doon waxu wax bu ñuy tëj dañ koy ubbi waxtaan ci suñu biir donte mu ngi guddee mais lépp loo xamante ne lii ah euh, mooy li duuf ci nag bi mënul dem ci cin li yaa may laaj sànq ndax est que ñi jël kàddu bëri nañu ma ne la dañ koo gàttal jigéen ñi dañu jël kàddu ndaw yi jël kaadu après ñu jox la kàddu gi nga tëj ah li ci li ciy topp mooy euh, yàlla barke barkeelal ñu euh, teewaay bi barkeelal ñu euh, waxtaan bi barkeelal ñu jéemu yi en tout cas maa ngi lay remercier di la àggali ak euh, ñi nga àndal ñëpp monsieur Seye Sall àggaleen ak jàmm fii Pambal la dëkku séeréer la à quatre-vingt-dix pour cent waaye wax dëgg fa yàlla mag ñi ñëpp boo waxee séeréer dañu dégg boo waxee oyof dañu dégg donc on est ensemble et on véritablement de façon à ce que ñëpp am jàmm di leen remercier bu baax a baax encore une fois maa ngi guddal wax ji merci beaucoup